gaa yi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax seen xarit seen frère Ousmane Tounkara moo ñëw waxtaanaat ak yéen tey ci waa ji nga xam ne moom moo nekk ci kaw kii mi ngi tudd Ameth Ndoye yéen ñëpp yéen a ngi koy gis muy wër télé Sénégal yi yëpp di wax lu dul dëkk di wax safaan di tooñ di xaste wax wax ju ñaaw bu ne boo ko xamee mi ngi koy wax moom Ameth Ndoye lundi le octobre dernier aux alentours de 11 à 12 le chroniqueur Ahmed Ndoye ancien animateur de Sen Seneweb circulait à bord d'un véhicule Ford Escape Ford Escape gris foncé immatriculé AA BP lorsqu'il a heurté un jeune Sénégalais sur la route nationale précisément à Sébikotane près du marché Tableau donc suite à cet accident ñaari gendarme ñëw nañu sur le lieu gendarme bi ñu ñëwee sur le lieu def seeni ay enquête laaj Ahmed Ndoye mi kayitu oto bi Ahmed Ndoye yorul woon benn kayit ci oto bi attestation rek la yoroon gars yi laaj ko fu permis bi nekk mu ne permis baa ngi dakaar donc gars yi dañu jël oto ba ba ñu jël oto ba dem gaare ko ci gendarmerie chef bi xotaan donc oto baa ngi nii ma won leen ko oto baa ngi nii ci gendarmerie bi boo leen ko xoolee moo ne nii donc moom Ahmed Ndoye dafa waroon indiwaat permis Ahmed Ndoye nag frère am la woo ah, bi accident bi am amee dafa woo frère am ba mu wooyee frère am frère am bi contacter Seydina Ndoye la tudd propriétaire d'une boutique orange à Sébikotane pour discuter avec les gendarmes entre-temps les sapeurs-pompiers son ont intervenu pour prendre en charge le jeune ñu yóbbu ko dem faji ko mais moom Ahmed Ndoye où cette note est rédigée le 23 octobre à 18h40 cependant il est surprenant de constater qu'Ahmed Ndoye quelques heures après l'accident est apparu en direct sur ITV pour critiquer encore une fois comme ni ngeen ko xamee Ousmane Sonko kenn xamul am na permis damay laaj am na permis amul permis lan la ñuy nëbb doomu jaambur boobu mu tamponné tamponné bu metti boobu lu tax ba léegi kenn yeyul yàbbi ci dañu bëgg ngeen wax ci ci lu mu gën a gaaw dañu bëgg aussi gendarmerie automatiquement ngeen interpellé kii di bandi bii di am Ameth dooy pour mu présenter permis am ba pare doomu jaambur boobu mu tamponné ci yan condition la ne ak kan moo toon ci accident bi donc gars yi ñu ngi leen di xaar pour ngeen indi leeral ci loolu ñu ngi leen di jaajafal am Ameth Ndoye nag moo nekk nii oto bi comme ni ñu leen ko wanee muy Ford Escape bu gris foncé na mbir mi leer na leer na leer na leer ñun Sénégal jub jubal jubbanti la ñu wax amul xàjj ak seen nag bu fi kenn jooy victime waa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu